ko noo def. yaa ngi ci jàmm. sant yàlla. yaram bi. maa bu baax. waaw léegi papa ñu gisoon ni que fan yi ñu génn euh, dañ la tàggee woon ni que génn àdduna ba nga koo déggee euh, lan nga yëg sa yaram. bu dégg rek commencé di jooy. yéen a man su ma génn àdduna ja tokkul su ma ciyee àdduna génn nag àdduna man daal gënalu ma daal ki ko def nag nga fexe ba gis ko nga fexe ba gis ko yàpp ko indi ko raay ko raay ko fan la ma gisee photo yi fu mu ko jëlee ah photo yi fu mu ko jëlee ñaari photo yoo xam ne benn la asalaamaaleykum waaw ah, maa ngi nuyu ñëpp su ku nekk sa sant di leen gërëm nag di ñëpp waaw ah, di ñaan yàlla nag xam nga yàlla na fi jàmm yàgg xam nga di gërëm di ñaan jàmm Sénégal ndax góor moom lay ñaan waaw lii nag bu ñu ko déggee ñun métti nañ trop vraiment nga toog xëy nga toog ñëw ñu ne la diw làqu na te loolu nit nit waru ko def balaa ngay def leen nga war a xoolaat bu baax balaa ngay wax li ngay wax ni ko war a xoolaat bu baax ndax àdduna bu mu toll nii moom bu jeex na jeex boo xam ne kenn xamul kañ la waaw te am na am na yenn fitne yoo xam ne kenn waru ko ñaanal doomu aadama ndax kii suñu bàyyi la moom la ñuy am waaw ñu bu ñu toogee ay doomam njabootam ñu ne seen papa nangam. fekk yow yaa fanaan ak sa baay ba bët set bàyyi ko sa baaba ah jàmm ak ña xam bàyyi ko jàmmam ak yaramam retour ñu waxal la dinañ la métti trop métti nañ trop nag ku def lii nag moom vraiment métti nañ trop waaw trop waaw ñaareel nag di ah, gërëmaale le président Macky Sall ak jabaram waaw di gërëmaale le premier euh, ministre des sports ñu ko bu baax di gërëm suñu grand frère di rakku paa waaw Axma Diop. du koy gërëm bu baax du koy ñaanal waaw du gërëm bu ko mën Ndofène juuf du koy ñaanal waaw ndax moom ak góor gi benn lañu góor gi nag mu ngi fii parcelle ba unité 21 waaw ma dafay sàll moom ba muy amoon amoon na jamono doo yónni ay doomu aadama ñu koy nemmeeku moom xam nañu ñu njaboot booy wàmbar xam nañu moom fàttaliwul suñu papa waaw ñu koy ñaanal lii nag métti nañu trop nag waaw waaye ñu koy bàyyi si loxo yàlla ku def lii ñu koy bàyyi si loxo yàlla métti nañu trop. góor gaa ngi ni toog góor gi ba mu ko déggee dafa jooy mu metti ko trop waaw ñuy ñaan nag di gërëm ñëpp waaw di gërëm doomam Balla Gaye waaw di ko gërëm bu baax waaw madame Faye Sall Balla Gaye ministre sport Axma Diop mu ñu leen fay di gërëm nag benn xaritam ni Nicolas ndax moo góor gi démb lañu ndax moom fu ne woo woo na fa góor gi góor gi fekk si ko ba ndogal bi dal ko mu defal góor gi lu bëri te woo Sénégal yëpp ànd ak moom jàppal góor gi te yàlla tax li ñu ñaan yàlla nag fee mu nekk nag ah man nag doomu góor la góor gi mu yónni mu ngi ñaan Macky sàll ak ma def fay sàll ndax papa bi nee na Macky Sall si boppa mu ñaar ay mbokk lañu ndax bu mu koy xam yàgg na boobu tey boobu Sénégal melul nii kon mu ngi ñaan si yàlla ngeen bàyyil ko ni Nicolas ñu ngi si famem waaw di gërëm nag Sénégal yëpp di gërëmaat ma dama fay sàll ndax gis nañu doomu aadama mi yónni si góor gi di gërëm ñu jàppale paa bi yëpp di gërëm doom doomam yëpp ñu jàppale paa bi ndax góor gaa ngi ni toog si këram fii parcelle unité 21 waaw ñu ngi sant ñëpp góor gi nag mu ngi nii sant yàlla bu wér a wér waaw ñu ngi gërëm ñëpp daal waaw ñu ngi gërëm Sénégal.